alim monsieur Nasser Benzina monsieur Anwar Ahmed Deimani au niveau de la Tunisie monsieur Ferry Mechergui au niveau de la Côte d'Ivoire son excellence monsieur Mamadou Haïdara ambassadeur au niveau de l'Angola son excellence monsieur Adao Pinto ambassadeur au niveau de la Libye Monsieur Rajab Jontoy, premier secrétaire. Au niveau de la France, Monsieur Florian Blasi, ministre conseiller, accompagné de Madame Dianame Dobelcourt et Alassane Ba. Au niveau de l'Irlande, son Excellence Monsieur Derek Hamon, ambassadeur. Au niveau de la Palestine, son Excellence Monsieur Nasser Djerdallah, ambassadeur. Accompagné de Monsieur Mounzer Abou Hashishi, diplomate. au niveau du Royaume-Uni, son Excellence Madame Juliette John, ambassadeur. Elle est accompagnée du chef de mission adjoint, M. Samuel Nichols, et de M. Kevin Gay, chef du service politique. Au niveau de l'Algérie, M. Bachir Mouhtari. Au niveau des États-Unis, M. Darin Kovitz. Au niveau du Mali, M. Drissa Malé. Au niveau du Zimbabwe, son excellent monsieur James Maridadi et monsieur Benjamin Nengo Macha. Au niveau des États-Unis, monsieur Darin Kovic, je l'avais cité. Au niveau de l'Allemagne, monsieur Kuhn, premier secrétaire. Et au niveau du Cameroun, son excellent monsieur Jean Koé Ntonga, ambassadeur. Voilà Serigne bi ci sa ndigal ñi fi teew ci corps diplomatique bi dellu ci ñi nga xamante ni ñoo fi teewal famille religieuse yi ci Sénégal ñu wax la ni seen bokku bopp ba di sëriñ Mountakha Bachir Mbacké di xalif général des Mourides yabal na fi sëriñ Bara Abdoul Ahad Mbacké Babacar si Mansour ku ne xam na relation yu bokk ak xarito bi am ci diggante tuuba ak Tiwaawan tabarakallah ñu wax la ni la teew na fi aïma yu bëri teewal fi association religieuse yi tudd ci ñe tabarakallahu ñu wax la ni imam Aliou Sall di seen xarit mook imam Omar Diène ñu ngi fi teew tabaarakallaahu ñu wax la ni la teew na fi ay association ak ay ONG yu sori daañ ci tudd association appel islamique nga xam ni suñu mbokk Mor Diop ñëw teewal leen fi nu wax leen ni sëriñ bi ñi fi teew ci bokki diine yi ak organisation bi ci gàmmu gi incha allah dana ci dellusi def compte bi nga xamante ni moom la ko xalifa bi santoon moom ak mbokkam mu tedd ma sëriñ Habib nu war ko mottali euh, tabaarakallaa bu dellu see daa dellu ci bokk yu tedd yi nga xamante ni ñi ngi fi bokk ci xadra bi walla doon ay wëllëre xadra bi ñëw indi seen ndimbal waaye ñëw teew ci bis bu tedd bi tabaarakallaahu foofa la ñuy yamale kaddu gi wa axiru daawana an alhamdulillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëñ Abdou Hamid chargé de communication bi nga xam ne mooy coordonné lépp lu communication ci gàmmu gi mbokk yi dama jox kàddu ki nga xam ni sëñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes moo ko jox muy coordonné lépp loo xam ni moo jëm ci gàmmu gi ànd ci ak mbokkam mu baax mi sëriñ Habib bu sëriñ Mansour borom daara ji kon mbokk yi damay ñaan ñu déglu sëriñ Moustapha Sy Al Amin mi nga xam ni mook sëñ Habib ñoo doon dox li nga xam ne moo aju ci gàmmu bi sëriñ bi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wasala allahu wasallama ala almabuusi rahmatan lilaalamin sayidi bani aladnaan sayiduna muhammadin alfatixi alxaatim walhaadi ila sirati illahi almustaqim wa ala alihi wa ashaabihi wa taabiciina lahum bilhuda ila yowmi ddin wa radiyallahu an al-qutbi al-maktum wal-barzakhi al-makhtum sayyidi Ahmad ibn Muhammad ibn Salim at-Tijani wa an saa'iri xulafaa'ihi alayhim ajma'iin sëriñ bi ñu ngi lay wax salaamun min allahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu di la nuyu di ci teg gan ñu tedd yi nga xamante ni ñoom nga am tabaarakallaahu yow ak say rakk duma dugg ci lim waaye bu jotee da ko yëgal mbooloo mi kàddu gi may wax nag dama ko wax ci yéene comité d'organisation bi nga xamante ni sunu wéyjur alxalifa seydi aboubacar si mouhamadul mansour moo ko taxawal wax nu man ak mouhamadul habib ibnu seydi mouhamadul mansour borom daare yi xalif général ni nanu àndandoo ak moustapha bosam dem ci bàyyi sëriñ babacar si abdul aziz bi ñu demee booba mu ngi nekkoon ci nu tànn tem ba nu demee ca moom mu seet comité culturel bi nga xamante ni moo tem yi proposé ko mu jëlal ci bii nga xamante ni moom la Abdul Hamid junj léegi mu di kàddu gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni innama bu'istu li utammima makaarima al axlaaq dañu ma yónni ngir ma ñëw mottali jikko càng yi tabarakallahu ñu jël mu di tànneefu boppam nu àndandoo dem ci comité bi jox leen ko ñoom ñu liggéey ji ci ñu ci lañu liggéey forom yi ci lañu ñu liggéey it communication bi nga xamante ni moo jaadu ñu war koo jox mbooloom Sénégal waaye mbooleem bitim réew fàttaliwaat leen pour ñu taamu delluwaat tukki ci jikko yooyu nga xamante ni Abdul Hamid tudd na ko léegi ci kàddu Seydi Hadj Malick mu di fukki jikko yoo xamante ni bu amul boo moytul sunu pénc dafay nërmelu yàlla nañu ci yàlla musal loolu nag incha allah Serigne Makhtar kebe du ñàkk dana ci ñëw waaye ñu wax la rek ni nous avons entamé cette organisation avec la tenue de deux CDD un CDD et un CRD au niveau régional ba nu ci jógee ministre bu tedd bi di Jean-Baptiste Tine woo nañu ci Dakar noonu comité bi ak tous les chefs de service région régionaux ñu àndandoo pour waxtaanee lu jëm ci saytu gàmmu gi ñu bëgg laa wax rek ni la ministre bi lépp loo xamante ni dafa concerner réussitu gàmmu gi sur le plan sécuritaire sur le plan de la santé sur le plan de l'hygiène ku ne xam na ni nawet la ñuy jënkonteel te nawet ku ko tudd tuddaale taw baa ngelaw baa naaj wu tàng wala feebar wala jàngoro yu raam te booba sunu continent mu ngi confronté wu ci ay jàngoro yuy wàlle wax nañ ni lépp lu aju ci wàllu woowu avec le ministère de la santé taxaw nañu taxawaay ba gën a rafet dans le domaine de la sécurité li mu déployé ci ay agents yoo xamante ni boroomi tenue lañu ci wàllu police ak gendarmerie ànd ko ak armée bi tabaarakallahu yaatu na loolu pour lu mën a rek teeru dalal ak fàgganiku lu jëm ci wàllu kaarange askan wi ñëw ci Tiwaawan ku ne xam na ni mbooloo mu tol noonu dalal leen ñu dal jàmm yombul waaye am na benn bu ma ci bëgg a wax mu jëm ci wàllu accident yi am ci jamono bii ñu constaté ko ci réew mi yàlla dogal na li mu nammoon nga namm ko moom xalifa bi mooy lan nañu def gàmmu gi te du am benn accident waaye al azimatu lil abdi wal qadaau lillah yàlla li mu ci dogal boobaak léegi ñu ngi jënkonteeg moom waaye ragal-ragal amagu ci ñu wax la taxawaayu euh, Dakar dem dikk ci wàllu wow waaye wax la itam chauffeur yi moom ministre bi nu mu waxtaaneek ñoom ba sant leen ñaan leen ñu digal chauffeur si ñu ñëw ci jàmm indi nit ñi ci jàmm delloo leen ci jàmm te ànd dal-dal bi mu war a àndal ak teey ak yar ndax yar lu mu duggul loola yàqu tabarakallahu sëriñ bi loolu gis nañ ministre bi di ministre de l'intérieur taxaw ci taxawaay ba gën a rafet dalal nu o ministère waxtaane problème yëpp amoon nañu njàqare itam ci wàllu économie te mooy denrée yi nga xamante ni moom la pèlerin yi soxlawoo biir Tivaouane bi nu ko yëgee signalé ko le ministre de l'industrie Serigne ngay Diop bi tabarakallahu moo àndandoo ak ministère am yi amoon ci ay yennati denrée lu ci ne joxe na ndigal pour ñu lever ko dugal ko ba mën a approvisionner le marché ba marché bi yaakaar naa ni am na lu ma wan keroog président Koskas ci déchargement wu pomme de terre wala oignon bu ñu indi te fekk na ci biir Tiwaawan la te booba ci ñaari fan la toll yéwén yéwén googu itam mu joxe ci ay ndigalam wëlbati ku ñëw ànd ak boroom réew mi wëlbati ku ñëwaat teew ñu wax la taxawaay bi nga xamante ni def na ko ci wàll woowu ba ragal-ragal yi ñu ci amoon yépp wàññiku na beneen bi ñu di ko tudd mu jëm ci li nga xamante ni mooy chef de service yi nga xamante ni ñoo aju jëm ci lépp loo xamante ni luy jàppale gàmmu gi yaakaar naa ni li nu ci jot a gis boobaak léegi ñu doxor liggéey bi mu nekk liggéey bu xaw a jafeñ nun ak naatagoo yi nu yàlla booleel ñu ànd ak ñoom ci commission d'organisation bi sëriñ bi dañu lay wax rekk ni la li nu ci doon sàkku daal lu ci bëri mën naa wax ni yéwén na la ca des nag yàlla rek moo mën a matal yàlla na nu yàlla boole jàppale ci li ci kanam te lépp loo xamante ni nekk na wàññiku wàññeen ñu jéggal nu ko ndax nit du mat te nit bu matul ah la muy def il faut mu am wàññiku wàññiku pour wax la ni daal comité bi ñu ngi tënkuwaat feeñal la taxawaayu sunu kilifa yi ngeen booleel Serigne Cheikh Tidiane si Mouhamadul Mansour sëriñ Babacar si Abdoul Aziz Pape Khalifa Babacar si Cissé rawatina sëriñ Mansour mi nu coiffé woon te penc mi nu nekk di yëngu muy pencu sëriñ Babacar tey moo fay mag ànd ko ak i mbokkam yépp nun ñi féete ndaw di leen doxalal ñu ngi lay wax ni yëgunu benn yoon benn gàllankoor ci ndigal yi ñu joxe ba yegg ci fii ba tey jii ñuy wax lu jëm ci wàllu gàmmu ñu ngi lay wan ni daal euh, comité d'organisation bi am na bépp cant jëmale ko ci le président Mame Ousmane mi nga xamante ni moo jiite le COSCAS ànd ak Abdoul Hamid mi doon wax muy la communication avec la Zawiya Tijaniya ak yeneen mbooloo yi nga xamante ni ñoo séq saytu wàllu gàmm wax la nit kër gi képp kuy njaboot te di borom mën-mën rek fekk ngënu ci comité bi àndandoog nun ci terme de référence yi mu tegoon def ca lu la war ba def ca lu la warul waaye ci sa kanam ñu tuddal la le maire de Tivaouane El Hadji Demba Diop moom it desalul benn kattan pour nu mën a yegg fi nu yegg tuddal la it ab lay Ablaye ngal Ngalgu tabaarakallahu moom it desalul benn kattan pour jàpp leenu ci wàllu organisation bi waaye tuddal la it El Hadj Abdoul Aziz Ndiaye Al Amin nga xamante ni sunu doomi bàyyi lañu ak El Hadj Makhtar Ndiaye ci wàllu malikiya lépp lu leen waroon def nañ ba def lu leen warul kon nag ñu ñaan la nga ñaanal leen yal na yàlla gën a samp seen teranga te barkeel seeni yëngatu te sàmm leen musal leen te may nu tawféexu fekki lépp di la wax ni boo demee ci sa kilifa sa mag sunu wayjur sunu nijaay sunu maam Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mouhamadoul Mansour ni ko nu ngi takku ànd képp kuy njaboot doon benn say pour fas yéene li mu mébét yàll na ko yàlla yeggaleel mébétam nu duggaale ci biir mébétam yàll na ko yàlla gunge ndamam nu duggaale ci biir ndamam yàll na ko yàlla dolli wér tabaarakallahu defalaale ko képp ku tëdd ànd ko ak rakkam yu tedd ya sëriñ Maodo Abdoul Aziz sëriñ Babacar si Abdoul Aziz ak yow mii nga xamante ni tabaarakallahu yaay sunu lépp di sunu baay yàlla na la yàlla dolli wér te mottalil la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Je voudrais juste compléter euh, la liste euh, de la délégation gouvernementale. Monsieur Ousseinou Ly, ministre conseiller en charge de la communication et dans la délégation, elle n'a pas été mentionnée dans la liste. Ousseinou ñoo moom ñoo bokk lii tabarakallahu mu nekk suñu mbokk bokk bokk ci lii ñuy def macha allah ñu teew ñu feeñal teewaayam ci euh, euh, délégation bi ñu tuddi euh, ambassadeur bu Arabie Saoudite yàlla dafa dogal liste biñ ñu jox dañu ci fàtte mentionné turam ñu nuyu ko feeñalal ko cofeelu xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour ci wallaaqa bi nga xamante ni Tiwaawan am na ko ak royaume d'Arabie saoudite excellence soyez-en remerciés ñu ngi ñuy wax aussi que y une délégation de la Turquie qui est présente nous souhaitons la bienvenue à la délégation euh, donc de la Turquie présente ici la Turquie qui est l'un des pays amis qui a beaucoup contribué dans la construction de la grande mosquée de Tuawan, la grande mosquée dont les clés ont été remises au Khalif général de Tijan hier. Tabarakallah. Donc, euh, euh, la délégation turque, euh, soyez les bienvenus à Tuawan. Voilà un peu les oublis que je voulais compléter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. jërëjëf sëñ Abdou Hamid mbokk yi dégg ngeen Serigne Moustapha Sy Al Amin ñu koy jaajëfal waaye di jaajëfal sëñ Habib bu sëñ Mansour borom daara ci mu ànd moom ci liggéey bi ñoom ñaar yàlla na leen yàlla gërëm seen maam barkeem yàlla na wàcc ci yéen. bokk na ci li sëñ Abdou Hamid doon wax léegi ah, sëñ ah, Haj Malick Cissé bu piir représenté fii sëñ Pape Abdou Cissé xalif général bu Pire. ak sëñ Bara Laar kon dañu jox kàddu gi ki nga xam ni moo fi représenté sa majesté Mohamed VI roi du Maroc Badruddin Mohamedine waaye nee nañ ma représentant mooy wax ñu jox ko mu jël kàddu monsieur le représentant de l'ambassadeur du Sénégal au Maroc veuillez ici au public la parole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 بالحضرة المالكية التيجانية التواونية الشيخ أبي بكر منصور مالك مالك سي السادة الأفاضل الكرام السيدات الفاضلات الكريمات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أعبر لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن وفد المملكة المغربية الشريفة الذي يمثل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الاحتفاء والاحتفال بمولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحفل البهيج وفي هذه الحضرة المباركة التي تحفها رعاية الرحمن إن هذه التظاهرة الدينية التي تقيمونها سنويا بهذه المناسبة العظيمة وهي مناسبة مولد خير البرية والتي نتشرف جميعا بحضورها تساهم بلا شك في ترسيخ الروابط التاريخية القوية والمتينة بين المملكة المغربية الشريفة وجمهورية السنغال الشقيقة بلدنا الثاني هذه العلاقات الضاربة في عمق التاريخ والمتجذرة بين الشعبين الشقيقين وهي علاقات تمتح من أواصر العقيدة والدين التي تجمعنا فهي إذن علاقة أخوة ودين ومحبة إن هذه الروابط الدينية والصوفية العريقة والمتفردة التي تجمع هذين الشعبين العظيمين عبر تاريخهما التليد والمجيد هي أس العلاقة الثنائية النموذجية والمتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة من أجل مستقبل مشرق وتعاون مثمر بناء مستند إلى قيم التضامن والثقة والتقاسم إن المملكة المغربية إن المملكة المغربية بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره تولي هذه العلاقات المتينة كامل عنايتها وما فتئ أمير المؤمنين أنا أسماه الله وما فتئ أمير المؤمنين أسماه الله يبذل قصارى جهده من أجل الرقي بهذه العلاقات إلى مستوى أكثر تميزا وما زياراته حفظه الله المتعددة والمتكررة إلى هذه الربوع إلا دليل على سابغ عنايته وحرصه على هذه الأواصر المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ولا يفوتنا في هذا المقام الكريم أن نذكر في معرض حديثنا عن هذه العناية المولوية السامية بمكرمة سيدنا الهمام بإنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي تجمع تحت لوائها ثلة من علماء هذه القارة والتآزر والتعاون والتعاضد إنكم أيها الإخوة بهذا الاحتفال المشهود تعبرون بحق عن حبكم لنبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعن تجذر هذا الحب في هذه الربوع المباركة خدمة للإسلام والمسلمين وللتصوف وأهله ونحن فرحون أيما فرح بحضورنا معكم في هذا الجمع المبارك وبهذا الاستقبال الحافل ونعبر لكم مرة أخرى عن سعادتنا الغامرة بهذا الحب المتبادل بين شعبينا العظيمين وإن حاضرنا هذا كما أسلفت هو استمرار لماضينا العريق وتجسيد للوحدة الدينية والجغرافية التي تفرض الترابط والتلاحم بين بلدينا الشقيقين فالله تعالى نسأل فالله تعالى نسأل أن يوفق, أن يوفق سماحة الخليفة العام ويلهمه السداد وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يحفظ بلدينا الشقيقين ويبوئهما المكانة السامقة العالية كما نتضرع إلى العلي القدير أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين سبط النبي الأمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يكلأه بعينه التي لا تنام في حله وترحاله وأن يجعله على الدوام ذخرا للإسلام والمسلمين وأن يقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وأن يشد أزره بسنوه المولى الرشيد وبسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة كما نضرع إليه سبحانه أن يغدق شآبيب الرحمة والغفران على الملكين العظيمين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جناته كما نسأله عز وجل أن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان وأن يحف بلدينا الشقيقين بالسلام والاستقرار ويبوئهما مراتب التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أسماه الله وأبقاه وأخيه فخامة السيد رئيس جمهورية السنغال الشقيقة بصير ديوما مايفاي إنه تعالى سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته excellence jërëjëf mbokk yi xam ngeen ni Tiwaawan dëkku leer la dëkku xam-xam looloo waral sëriñ Babacar Sy Mansour li tarixat si Tijaan yàlla yàlla dëgëral ko te sàmm ko sàkk woon ci njaboot gi ñuy bind gëstu bind ci seen maam maam Cheikh Sidi Hadj Malick Sy radiyallahu taala wut ñaar ci doomam yi di boromi xam-xam yu nu ràññee muy le professeur Abdou Salam ak doomam jarbaatam professeur abdu Aziz Kébé sant leen ñu bind ci maam Seydi Hadji Malick Sy bi nag sotti na mi ngi nii li koy wecceeku mooy vingt cinq mille francs ñu bëgg ñépp jënd ko li nu dëggal ci biir livre bi mooy taxawaayu maam Cheikh Sidi Aj Malick ci bokk ci diine ak ci doxalin ci wàllu lislaam livre bi mu ngi nii ki ci njëkk a bind nag bu ci kanamee léegi dinañ dugg ci nit ñi xam naa sax jaar ci autorité yi ku ne bind ko yor ko boo demee ba sa kër di ko jëfandikoo xam góor gi njabootam ak digganteem ak bokkam yi mu sëqal diine loolu moo doon information bi nga xam ni waxoon nan nan ko jottali mbooloo mi ak taalibe yëpp ak fu nit mën a nekk mbokk yi damay jox kàddu gi sëriñ Pam Maxtaar Pam Muxtaar Kebe mu jël kàddu délivré li nga xam ne mooy message yu sëñ Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane kon sëriñ Pape Mokhtar dañ koy jox kàddu léegi rek waaye di nuyu bu baax autorité fi toog yépp ñi ñëw ñépp yal na leen yàlla fay yàlla bu coono neen lii ñuy def yàlla nañ ko fekke ay déwén yu baree bari te mu ànd ak wér ci kanamu xalifa bi ak njaboot gi bu baax a baax a baax kon ma jox kàddu gi sëriñ Pape Mokhtar Kébé mu génne li nga xam ne mooy message yu bi jëme ci taalibe yi jëme ci corps diplomatique bi waaye jëme ci àddina bi yëpp sëriñ Pape Makhtar Kébé kàddu gaa ngi noonu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi alqaili fi muxkami tanzili laqad manna allahu ala almuminina id bacata fihim rasula id bacata fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin wasalaatu wasalaamu ala man xayaatuhu raxma wa mamaatuhu raxma wa risaalatuhu raxma sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladi sharafa alwujuda bi talcatihi albahiya wa nawwara alquluuba bi risaalatihi annayira alrahmati almuhda wannicmati almusda wa ala alihi wa saxbihi algurri almayamin wa man tabiahum bi ixsanin ila yowmi ddin saaxib almaali wazir aldaaxiliya alsayid Jean Baptistine mumathila faxaamati raisi jumhuriyati Sénégal Bachir Diomaye Diakhar Faye أصحاب المعالي السادة الوزراء والنواب أعضاء الوفد الحكومي المرافق لمعاليكم سعادة سفير المملكة المغربية الشريفة السيد حسن ناصري والوفد الكبير الرفيع المستوى المرافق له الممثل لصاحب الجلاله الملك محمد السادس أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين المتكون من الأئمة والعلماء والدعاة من مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة صاحب السعادة سفير المملكة العربية السعودية الذي أيضا يخصص له فضيلة الشيخ ajzala ayaati shukri wa taqdiri wal imtinaan ala ma yaquumu bihi min taqdiimi yadi alawni wal musaacada ila alxalifati wa ila kaafati afraadi hadihi alusrati alkarima asxaab alsacaada alsufara acdaa alsilk aldiplomaasi almuxtaramin asxaab almashiixa mumathili almarjiciyaati walqiyaadaati addiiniya والروحية في السنغال أصحاب السيادة ممثلي الجمعيات والحركات الإسلامية أصحاب السيادة ممثلي الأحزاب السياسية والحركات النقابية أصحاب السماحة أئمة المساجد والزوايا والكتاتيب القرآنية والمقدمين ورؤساء الدوائر كما nusallimu ala axin xabibin lana ismuhu muhammad baadu si wa in kaana gaa'iban anna fa inna ruuxahu xaadirun maana fi hada alxafl almubaarak duyuufana alaizaa alqaadimiina min muxtalafi albuldaan alifriqiyati wal urubiyati wal amerikiyati wa qudwati al umma di l axlaaqi al majida wa shamaa'ili al xamida tilkum allati xallasat al insaan min al aqaaidi al faasida wal quyuud laa ala al ismi wal udwaan wa tilkum makaarimul axlaaq allati hiya xikmatu bi'sati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alqaa'ili fi xadiisin saxiix innama bu'ithtu li utammima makaarima al axlaaq ixwata al iimaan nuhanni'u al usra al umma al islaamiyya fi jamiici rubuuci al caalam daaciina allaha al caliyya al qadiir an yumakkinana min al ijtimaaci bikum axbaaban wa ixwatan wa asxaaban wa macaarifa fi rihaabi xadratikum almubarakati almaymuuna madinati tiwaawan almahruusa madjaci alaarifi billah mawlaana cheikh alxaaji malik si radiallahu anhu alladi karrasa xayaa internet li taxmili charr على مجهوداته الكريمة تجاه هذه الحضرة المالكية التجانية وإلى أعضاء السلك وإلى أصحاب سعادة السفراء الموقرين الذين شرفونا بتعوية بتلبية الدعوة المباركة التي كانت موجهة إليهم لحضور هذه المناسبة التي ليست هناك مناسبة أعظم أو أجل منها ألا وهي مناسبة ولادة خير البشر sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladi nuhibbu fi nukinu lahu mahabbatan xaalisatan fi qalbina fa huwa nabiyuna wa imaamuna wa qudwatuna wa shafiuna gadan insha allahu tabaraka wa taala ida shtaddat il ahwal kama nashkuru jamia alshuyuux wal aima wal ulama wal ahzab alsiyaasiya وكافة المسلمين والأحباب والأتباع الذين جاءوا من قريب أو بعيد لحضور هذه المناسبة الكريمة ونجدد خالص الشكر لكل من أسهم من قريب أو بعيد في استكمال أشغال مشروع هذا الجامع الكبير في مدينة تواون وفي وفي مقدمتهم جماعة النور السنية الذي يرأسها أخونا وحبيبنا alhaji mouhamadul mukhtar Cissé wa kaffati man maahu min al ixwan wal axawat saa'iliina allaha al aliyya al qadir an yataqabbala minhum wa minna hada al amal al jalil hadihi al ma'lama al taarixiya allati tu'addu bi haqq min ma'alimi al xadaarati al islamiyya fa jazaakum allahu anna xayran fa hanii'an lil ummati al muslima wa hanii'an بكل المرجعيات والقيادات الدينية داخل السنغال وخارجها داعين الله عز وجل للجميع المزيد من التوفيق والصحة والعافية وأن يرزقنا القبول والإجابة ويسدد خطانا إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وكل عام وأنتم جميعا بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم وحبيبكم وحليف ودكم addaa'i lakum alnajaha wa altawfiq alcheikh abou bakar mouhamadul mansour alxalifatul am li tariqati tijani mbokk yi dañ koy tënk rek ci kàddu yu gàtt li ci des bu sëriñ mouhamadul mansour jëlee kàddu dana ko ak incha allah xalifa bi nee na mi ngi nuyu ñëpp mu ngi ziyaare ñëpp ci bis bu tedd bii nga xam ne lawaykat waykat ba wax ne yow mun yatiihu ala zamani sabaaxuhu wa masaa'uhu bi muhammadin waddaau bis bii bis yépp ko ñee waa asamaan ñee ko waa suuf ñee ko lu tax occasion la boo xam ne ci la sangu nit ak jinne gane àdduna muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci gàttal sëriñ bi nee na mi ngi ndokkeel ñëpp di ñaan kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla teg kilifteef ci réew mi ñu gën a bàyyi xel njaboot gi rawatina loolu la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon pour joxe ci ay solution te boo di àdduna boo xam ne dafa fees dell ak weddi yàlla fees dell ak bokkaale fees dell ak jeng fees dell ak ndëngte yàlla yónni ko mu ñëw diiru ñaar fukki at ak ñett dong la woote yàlla may ko tawfiq mu wëlbati àdduna bi génne fi bokkaale génne fi jaamu xërëm def nit ñi ñu nekk ay nit gore leen dootuñu nekk jaamu kenn ku dul yàlla wa ma umiru illa li yaabudu llaha muxlisina lahu diina xunafa mu réussir ko ci diiru ñaar fukki at ak ñett kon buñ demee ba jamono dellusi ndaw ñi dem ba mel ne dañoo xamatul fu ñu jëm bakkan ni mu fooree njureel ni mu mettee xale yëpp rëgatu jóg di jël ay gaal di dugg ci géej ñu ci bari di ci ñàkk seen bakkan mbokk yi kooku war naa tiital képp kuy nit ñu ñaan kilifa yi ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine ji moo xam ay xalif généraux lañu ilimaan yi borom daara yi parents yi rawatina ñi nga xam ne nguur ci seen loxo la ko yàlla teg ñuy doxal ñu bokk daje waxtaan naka lañuy ñuy dimbale xale yi ba seen xel dal ba ñu toog ci réew mi dootuñu génn biir Sénégal ñaanal leen ba teraanga bu ñuy am ñu am ko ci biir réew mi te moytandiku gaal yi nga xam ne gis nañ li ci xew bu yàggul mbuur mi bakkan ak benn bakkan ni mu fooree yàlla ne ku dundal benn bakkan dafa mel ne dundal nga àdduna bi yëpp ku faat benn bakkan dafa mel ne faat nga àdduna bi yëpp ñaata bakkan ñoo ci génn àdduna sëriñ bi nee na loolu lu jar a seet la mbokk yi lu jar a lu tiitlu la lu jar a bàyyi xel la naka la ñuy waxtaanee xale yi naka lañ leen di wutali ay solution ba ñu toog ci biir Sénégal seen xel dootul nekk mukk ci jël gaal di dem bitim réew di ñàkk seen bakkan ci géej gi sëriñ bi nee na itam phénomène yi am ci jamono nee na mi ngi jaale ñi nga xam ne jot nañ ci dem yal na leen yàlla yërëm di ma seen seeni way jur waaye di ñaan xale yi ay doomam lañu ay sëtam lañu ay soppeem lañu mu ngi leen di tàllal loxo di leen ñaan ñu bañ a yàkkam ci àdduna ñu toog waxtaan solution du ñàkk lu problème rëy rëy ci àdduna solution mën naa am ñu waxtaanee ko ba solution am moo gën vraiment vague yii dem ñu ci ñàkk suñuy doom yoo xam ne ñoom ñooy yaakaaru réew mi ñooy keno yi nga xam ne ci ñoom la réew mi yaakaar pour développement am émergence mën a am bi ci tegu itam nee na mi ngi ñaan macha allah yu bari yoo xam ne xale yaa ngi koy jëfandikoo ba dootuñu ànd ak seen sago lu tuuti nga jël ci bakkanu doomu aadama agressé nit rey nit jël bakkanam mooy loo xam ne bii tiital na képp ku nekk ci biir réew mi sëriñ bi ne ne mi ngi ñaan ñu seet naka la ñuy waxtaane génne ay sarax jàng alquranul karim waxtaan ak nit ñi gën a waxtaan ak ndaw ñi teg leen ci éducation islamique jàngal leen njàngalem alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne yàlla daf ko yónni woon mu nekk yërmande yónni ko mu jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp ñu topp ci ginnaawam ba mu àggale ci suñu borom fa tabarakallahu sëriñ baa ngi ndokkeel ñëpp ñu ngi baalu xaq yëpp mbokk yi discours bi bu neexee yàlla danañu ko jàllale ci xanawaat yi nga xam ne ñoo fi nekk jox ko professeur ya fa nekk danañu ko jël waxtaane ko tey bu neexee yàlla ci télévision yi fi nekk yëpp traduire nañ ko en français mi ngi ci loxo Cheikh Abdoul Hamid mi nga xam ne moo yore wàllu communication dana ko tasaare ba ñëpp jot ci ñu ngi baalu xaq ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ah, ngeen baal ma sëriñ bi dafa waxoon itam mu ngi sant ambassadeur bu Arabie Saoudite waaw ah, mi ngi leen di jagleel cant bu baax a baax ci seen taxawaay ci xadara bi ci kër gi ci lu bàll yu bare bare bare bare mu ngi leen di sant mu ngi koy gërëm mi ngi koy jànnal yàlla comme ni muy sant itam suñu mbokki marocain yi ci seen taxawaay kilifa gi doon jël kàddu léegi wax na ko am na benn fondation bu ñu tudde fondation Mohamed VI des oulémas africains fanweeri réew ak ñeent bokk nañ ci Sénégal ci la bokk Tiwaawan am na ci cër Touba am na ci cër Njaasaan am na ci cër Kawlax am na ci cër njaboot suñu mam muassasatu Muhammadin Sadis lil ulamaa'il afariqa fondation boo xam ne buuru Maroc moo ko créé lu ma 34 pays ñi ngi ci bokk ci réewu Afrique yi senegal ci la bokk tiwaawan humatan wa ihtimaman wa inaayatan faiqa lil xalifati di rakk ci président de la république euh, ci Sall mi ngi fi teew teewal fi euh, seen teewaayam ci mbooloo mi ñu wax la ni la Khalifa Ababacar Sarr di directeur général bu SONAGED mi ngi fi teew ku ne xam ne liggéey bu am solo bi ñu def ci mag Diop Sy ñu feeñalal la ni ci famille muqaddam yi suñu waa kër maam Daouda Dia Mabouri Dia teew na fi ànd koog Aliou Dia ñu wax la ni la seen njaboot yi nekk ci la Canada tabarakallah walla Suède ñoom ñëpp teew nañu fi macha allah ñu wax la ni la sa doom Xasan Mbeng bu Dakar dem dik sëñ Moustapha wax na ko ci taxawaayam ci gàmmu gi ci lu jëm ci wàllu transport bi waaye lépp lu jëm ci wàllu sonorisation Euh, tabarakallahu ñu ñaan nga ñaanal ko yàlla ñu wax leen ne Hadj Malick Gaye bu AGETIP teew na fi ñu wax la sëriñ bi ni ñi ngeen ñu boole lool mu di presse bi euh, tabarakallahu ñoom ñëpp ñi ngi teew dale ko ci sa télévision xadra bi mu di asfiyaay malikiya nga xam ni liggéey bi ñuy def ci wàllu communication ñoom lañu ko àndal tabarakallahu nga ñaanal leen waaye sant média yëpp tabarakallahu na ca RTS 2STV TFM ITV macha allah ànd nañoo ñun ci liggéey bu am solo Zawiya TV ak bokki soleil macha allah nga xam ni dañu def benn numéro spécial ci gàmmu gi def ko ci français def ko ci arab ngir bëgg rafetale ko bis bi teg ko ci loxo xalifa bi ne ko na ko jox gan yi nga xamante ni ñëw nañ wuyu ko ñu wax la ni la tabarakallah muqaddam yi ci kër gi ñëw nañu wala seen i njaboot ñëw nañu loolu la ñu doon complété Serigne Abdoul Aziz ñu delloo la kaddu gi nga mottali programme bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, sëñ Abdou Hamid mbokk yi danoo bëggoonu jox kaddu am na nañu fi délégation euh, délégation xalif général bu El sunu maam Daouda ja jóge ca mbëllaxee ko ko jiite El ma Mabouri Dia di xalif ñëw na ànd nag délégation bu toll ci fukki nit ak juróom jataay bee xat rek moo tax mënuñu leen lim ñoom ñëpp waaye ñu leen koy seedeel di leen gërëm bu baax di leen sant bu baax a baax a baax Pape Abdou Cissé Serigne Pape xalif général bu Pire yabal na fi El Hadj Malick rakkam moom it mu ñëw ci délégation bi bokk na ci ñi fi teew mbokk yi damay jox kàddu ki nga xam ni mooy Jean Baptiste Tine de l'intérieur mi nga xam ni moo jiite délégation bi son excellence monsieur le président la république Bassirou Diomaye fay jiite te démb rek gis ngeen premier ministre Ousmane Sonko ñëwoon fi kon dañuy jox kàddu gi monsieur le ministre de l'intérieur monsieur le ministre euh, kàddu gaa ngi noonu. merci beaucoup. éminence. sëñ Mansour Sy Dabakh. mesdames madame messieurs les ministres. excellences mesdames messieurs les ambassadeurs. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Tivaouane, Madame le président du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Tivaouane, chers fidèles musulmans venus de tous les horizons. C'est pour moi un immense plaisir de conduire au nom du chef de l'État la délégation gouvernementale ici à Tivaouane. En ce jour où la communauté musulmane célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui vient d'effectuer une visite dans cette ville sainte de Tivaouane, reste marqué par l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet. À ce propos, il réitère ses profonds remerciements à Serigne Babacar Sy Mansour ainsi qu'à toute la famille de Seydi El Hadj Malick Sy. Éminence Serigne Mansour Le Maouloud reste l'une des plus importantes fêtes commémoratives religieuses de l'islam. Il est célébré, il est célébré ici à Tivaouane depuis 1902 grâce à votre vénéré grand-père Seydi El Hadj Malick Sy. Cette belle tradition religieuse que notre pays doit à Seydi El Hadj Malick un érudit qui s'est très tôt mis à l'apprentissage du Coran, à l'étude des sciences islamiques et du droit musulman, est tout autant un acte de foi et d'adoration. C'est l'occasion pour moi ici, au nom du chef de l'État et du Premier ministre Ousmane Sonko, de féliciter très chaleureusement les professeurs Kébé et Fall pour l'ouvrage qu'ils viennent de nous produire. le chef de l'État est revenu à plusieurs fois sur la question de la préservation du legs et de la vulgarisation des enseignements de nos érudits. Ce travail qu'ils viennent de faire rentre dans ce cadre. J'ai demandé au directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de se procurer, à la fin de cette cérémonie, 100 exemplaires de cet ouvrage destinée au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement. L'édition 2024, la 122e du genre, avec la présence de nombreux fidèles venus de tous les horizons à travers le monde, se caractérise par des innovations majeures visant à mieux en lumière le message prophétique sur les valeurs qui doivent soutendre tendre nos actions de tous les jours et guider nos pas en vue de l'édification d'une société de paix, de justice, de cohésion sociale et de promotion de l'homme. C'est dans ce cadre que le chef de l'État et le gouvernement ont suivi avec un grand intérêt le forum du Gamou de cette année, centrée autour d'une thématique inspirée du hadith du prophète. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs. Fin de citation. Éminence, le contexte actuel, marqué par des menaces de tout genre et une perte préoccupante des valeurs religieuses et morales, appelle de notre part un retour aux nombreuses vertus incarné par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dont nous célébrons la naissance aujourd'hui et qui nous vaut ce rassemblement de foi et d'espérance. En effet, notre pays n'est pas épargné par les fléaux qui frappent le monde de nos jours, car notre société est régulièrement Secouée par des violences physiques et verbales les accidents de la route, les incivilités, sans compter les migrations irrégulières qui préoccupent au plus haut point les pouvoirs publics. À ce propos, Monsieur le Président de la République me charge de vous demander, encore une fois, de prier pour notre pays qui a besoin de paix et de toutes ses forces vives dans sa marche vers le développement. Aussi voudrais-je vous demander respectueusement, en ce jour privilégié de dévotion, de prier pour Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Monsieur Ousmane Sonko et l'ensemble des membres du gouvernement, pour qui le Gamou de Tivaouane revêt une importance particulière. Une importance particulière compte tenu de sa dimension religieuse, sociale, économique et internationale. Je ne saurais terminer, Éminence, ma profonde gratitude et remercier vivement les responsables du comité d'organisation qui ont travaillé en parfaite intelligence avec tous les services et structures de l'État pour le bon déroulement de ce GAMU 2024. J'en profite pour annoncer la venue prochaine d'une mission coordonnée de cinq ministères pour parachever des travaux autour de la grande mosquée afin de préparer l'arrivée massive des visiteurs qui ne manqueront pas de venir voir ce beau joyau. Encore félicitations, bon Maouloud et Dewenati. Je vous remercie de votre aimable attention. ma tënk kàddu yi ci wolof asalaamualeykum kilifa gi sëñ Mansour Sy Dabakh maa ngi lay nuyu di nuyu sarak rakk Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh di la yóbbante nuyoo ci xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour ak njabootu Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy yëpp di leen indil nuyoo ak ziaru président de la République son excellence Bassirou Diomaye fay ak gouvernement bi Ousmane Sonko jiite di nuyu mboolem kilifa diine yi fi nekk ci réew mi ak seen ndaw yi leen fi teewal di nuyu ambassadeurs yi di rafet rafetlu seen teewaay bi fii di sant comité d'organisation bi ci seen taxawaay ak seen collaboration ak mboolem service état bi ci waajalu gàmmu gi sëñ bi président la république mu ngi ndokkeel jullit yi yëpp rawatina taalibe tijaan yi ci bés bu tedd bii di bésu gàmmu nga xam ne lépp ay njëriñ la sëñ bi président de la république moo ngi sant xalifa bi ak njaboot gi yëpp di sàkku ci waa réew mi ñu bàyyi xel ci njàngaleem Cheikh Seydi El Hadj Malick ak ay jaar-jaaram ci mandute ak jikko yu rafet ak doylu boromam ñu war ci roy bu baax a baax a baax sëñ bi njiitu réew mi mu ngi ndokkeel xalifa bi ci liggéeyu jumaa ji ak taxawaayam bu am solo ak yite ju rëy yi mu def ànd ko ak njaboot gi yëpp te loolu lu am solo la ñu war ci roy ndax bu ñu jàppantee nekk benn boole sunuy doole mën nañu defar réew mi te loolu moo dëppoo ak jàngaleem maw maam Maodo Malick Sy sëñ bi njiitu réew mi mu ngi woo ndaw yi te di leen moytandiku di leen wax ñu moytandiku tukki yi jaarul ci yoon di nëbbu di tukki moom lu doy waar la li faatu ci géej gi bari na bari na lool te loolu metti na ci xolu sénégalais yi yëpp sunu réew ñoo koy defaral sunu bopp te réew mi dafa soxla ndaw yi loolu yittey président la yittey mboolem gouvernement bi la sëñ bi njiitu réew mi mu ngi fàttali waa réew mi yëpp ne ku ci nekk na warmaal ngëm-ngëm sëñ bi ci turu président de la république mu ngi ñaanal xalifa bi sëñ Babacar Sy Mansour yàlla may ko fan wu gudd te ànd ak wér di sakku tamit mu ñaanal réew mi yàlla saxal fi jàmm ak dal juram soppeem mu ñaanal ko ñaanal ko yàlla yàlla jàppale ko ba mu àggale yeneen ci réew mi ak jàmm te defal ko gouvernement bi yëpp ci njiitalu premier ministre Ousmane Sonko. gàmmu jàmmati leen wax déwénati asalaamualeykum. jërëjëf ma jox euh, sëñ Abdou yi nga xam ne mooy délégation Firorsi. waaw sëriñ bi ñu wax leen ni la comité. scientifique bu zawiya bi dafa tànnoon ci programmation culturelle bi mu dëgmaloon ci gàmmu bi waxtaane jukki lu mat juróom juróom benn ci mag ñi daroon Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ñu tànnoon ci ñeenti mooram yi Maam Mor Xujja Si maam Mor Amina si maam Mor bint si ak maam Mor Anta Kébé waaye toftal ci maam Maxtaar Jéen ak maam Góor Saane Ñang toftal ci waa kër maam Biragay Nayoobe Bara Gaye bu Nayoobe ak euh, suñu waa njare wàq euh, mu nekkoon waxtaan yu am solo ñu jël ñenn ci seeni njaboot ñu ñëw waxtaane ko waxtaane seen jaar-jaar waxtaane seen mbind euh, tabaarakallaahu ñu xamal la ni seeni njaboot a ngi teew teew ci daje bi macha allah waaye ñu feeñalal la ni la waa daairatul kiram nga xam ni mooy ndeyu daaira yi Mansour jaañ nekk ca bopp ba ñu ngi teew ñu wax la ni directeur général du port autonome de Dakar ni Waly Diouf Bodian ñëw na fi waaye yebal na fi Mansour Mbay ma ni Mansour maak yow la boole yabal <laughs> tabarakallahu yal na ko yàlla dëgëral ñu wax la it ni Maxtaar Njaay bu mouvement democratique et social MDS moom it teew na fi waaye sëriñ bi ñu wax la ni la ministère de la culture gannaaw kàddu yi fi ministre de l'intérieur yëkkati jëmale ci livre collectif bi nga xamante ni sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane moo ko seqoon nag ñoom professeur Abdou Salam Fall ak professeur Abdoul Aziz Kébé ministre de la culture moom it jël na dogal ni dana def une commande ngir metre ko ci disposition bibliothèque yi Sénégal yi ak euh, bibliothèque universitaire yi ci Sénégal ak centre culturel régionaux yi ak bibliothèque municipale yi loolu laa bëggoon a complété wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, jërëjëf sëñ Abdou Hamid euh, ñu gërëm bu baax ministre de la culture ci taxawaay boobu mu def ci commandé ci livre yi nga xam ne dañ koo bind jëme ko ci fépp foo xam ne rek bibliothèque xale yi jàng ko parce que xam sunu mag ñi dafa baax sëñ Abdou Hamid wax na léegi maam Seydi Hadji bi mu ñëwee fii dafa am ñu mu àndaloon ay mbokki taalibeem yoo xam ni tasooranal ci gox yu fasanti koy ci senegal ñoom lañ doon waxtaane ci comité scientifique bi nga xam ni amoon na fi loolu nag ci leen sukkandiku ba génnee lii ngeen xam ni mag ñooñu àndoon ak maam Seex Sédage Malick ku ci nekk wax nañ sa jaar-jaar ak sa diggante ak moom ñuy ñaan képp ku sëtoo ci ñooñu wala bokk ci ñooñu wala jox la tarixa bi man ngaa wut livre bi di nga xam sa maam fa mu jaar ak ba mu fa mu egsi yëpp ñi ngi koy recommandé ñëpp incha allah délégation famille El Hadj Abdoulaye Mbeng Bumbula ko ko jiite mooy El Hadj Cheikh Tidiane Mbeng moom tamit teew na fi sama kilifa El Hadj mbay mi ngi nuyu sëriñ bi di nuyu xalifa bi di wax ni mi ngi ànd ak yéen ci bis bi sëriñ Moustapha Sy nee na ñu gërëmal ko ku ñu wax Demba Ka bu EDK moom tamit am na taxawaay nee na ñu gërëm le de la Médina Bamba Fall indi na fi équipe municipale bépp ak agent municipaux yëpp ñu am fi journée set setal bu baax ni ko ki nga xam ni sunu maire def na ko muy rab député Diop Sy waa kër maam Góor saane ñang ñoom ñëpp bokk nañ ci nee na ñu gërëmal leen bu baax sëñ Moustapha moo ko wax Abdoulaye Sylla bu Ecotra ci taxawaayam ak ci ndimbalam ci gàmmu gi sëriñ bi dañuy jox sa doom sëriñ Moustapha si mu ubbil sa kàddu ak alxuraanul karim wax sunu borom nee na Pape Makhtar Kébé nee xalifa bi ak ci arabe ak français nee na am na benn revue bu ñu tuddee alfatih buy génn fii ci kër gi nee na discoursu xalifa bi ma nga fa ci arabe ak ci français nee na ku ko bëgg nga jàkkoor ak Ache Mbaylo incha allah waa jamaatu Nour al Sunniya ñu gërëm leen sant leen ca ka nekk ca bopp di Makhtar Cissé ak ña mu àndal ñëpp ak équipe bi yëpp kon Serigne Moustapha bismillah bismillah يفعلون يكاد زيتها يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كذبوه سريع الحساب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له صدق الله العظيم si yàlla na dëgër kon mbokk yi ginnaaw ba nu yëgle conseil national des imams oulémas di senegal te ki leen représenté Aboubacar ñun ñëpp dañuy bokk déglu Serigne Mansour si Abdou mi nga xam ni xalif général des Tidianes sëñ Babacar si Mansour moo ko yabal kon mbokk ñu déglu.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 ci njiitu ak njiitalu ak ndigalu ak ndénkaane sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour xalif général de Tidiane bi sama kilifa maag ñi ma ko bokkal fii yëpp ci mbokk yu tedd yi di suñu sëriñ ñu koy ñaanal fan gu wér ak mboolem kilifay lislaam bi ak mboolem kilifa yu ñu am ci wàllu diine ak ci wàllu àdduna ak wàllu aada ci ndigalam mu yóbbaale rakkam yu tedd yi ak mbokkam yu tedd yi nga xam ni ay doomu baayam lañu ay doomu ndeyam lañu ay doomu bàjjanam lañu mu bokk ak ñoom responsabilité bi ci li seen maam Cheikh Al Hadji ak maam yu baax yi mu àndaloon bàyyi gannaaw génération ay génération di ko donnante te ñaanuñu benn yoon kenn di ca mujje pusa mu réer dañuy ñaan muy continuer di sax ànd ak ndam ànd ak sakk ak teraanga ndax yàlla da koy laaj ëllëg ku ci nekk ci ñi yàlla teg ndono loolu ci seen loxo ña ca jiitu di Cheikh El Hadj Malick Sy ibnu Cheikh El Hadj Aziz Maodo boobu ba léegi yéen dégg muy wax ni waxul ni sax sëriñ Babacar mbagam la waaye sëriñam la ndax moo ko yar ci loxoom la gimmee ci Cheikh Ndiaye maa béy ca njéeneen ca Dakar ak feneen fudul foofu ci Tiwaawan ak feneen mook papa Muntaga Taal surtout pap Cerno Seydou Taal ñu ànd ak Bachirou Ndiaye bu Pape Alxaaji Cheikh ma Mabéy ak ñeneen bokk na ci ñi nekk ci keppaaru xalifa bi gannaaw sëriñ Cheikh Alxaaji Amidul Mahad al Mubarak bi muy doyen wu institut islamique bi nga xam ni moo nekk ci zawiya Maam Alxaaji Malick te institut Maam Alxaaji Malick bi fi am moo jur institu yi nekk fii yëpp ci biir dëkk bi ak yeneen yu nekkul ci dëkk bi nekk feneen ci Sénégal ci lu bare bare sëñ Babacar Mansour mi ñu yónni daf ñu boole ak sama mbokk yi nga xam ni kenn ngi nii ci sama wet di rakkam di njabootam comme ni ñu ko doon ñun ñëpp muy Serigne Cheikh Tidiane Sy Abdoul Aziz son excellence ambassadeur u Sénégal woon ci réew yu bari ci réewu arab yi Arabie Saoudite la mujj nekk ambassadeur ba ni yàlla dogale mu ñibbisi gannaaw Émirats Arabes Unis ak omaan ak katar mu ngi nii toog ak rakkam yi nekk ci wetam yépp jafe na pour ñu mën a tudd ñépp ndax fa tabaarakallaahu suñu kilifa di suñu sëriñ yi nga xam ni sëtu Cheikh Alxaaji Malik lañu di sëtu Cheikh Seydi Aboubacar si radiyallahu anhu ak magam yaak rakkam ya ñoom ñëpp dugg jiitu nañu ci tudd turu ñooñu ñëpp di bokk gi muy sëriñ maam Abdul Hamid si bu Cheikh Seydi Abdul Aziz Al Amin muy magam Cheikh Mouhamadul Moustapha si bu Cheikh Abdul Aziz Al Amin fa muy suñu doomu baay bi suñu doomu mag docteur Pape Makhtar bu baay alxaaji Malick Kébé ak ki nga xam ni moo doon joxe kàddu yi muy suñu rak Seyid Al Khalifa Abou Ñang di njabootu Cheikh Al Hadji Malick yàlla tegoon ko ci loxo Cheikh Seydi Abdoul Aziz Al Amin ci ndigalu waajuram yu tedd ya mu yar ko mook mbayloo ñoom Paté Diop ñoom ñi nga xam ni ñu ngi ci biir organisation bi ànd ceeg seen mag yu baax yi mu di sëriñ Babacar si Abdoul Aziz Al Amin ci keppaaru moom ci boppam ci keppaaru magam bi sëtu Cheikh Al Hadji di sëtu Cheikh al di doomu Serigne Mouhamadul Moustapha Sy Jamil di taawam di sëtu mag ñi muy Serigne Mouhamadul Mansour Sy Jamil ak képp ku mu bokkal Sidi Jamil radiyallahu anhum muy sëriñ Cheikh Tidiane Sy mi nga xam ni mooy magu Pape Khalifa Sy Babacar bu Serigne Abdoul Aziz Serigne Cheikh moom Serigne Mansour di taawam di xalifaam ñoom ñëpp ñuy njabootu Cheikh Seydi Aboubacar ci ndey ak ci baay ak seen rakk sëriñ Mouhamadul Habib si ak sëriñ Mouhamadul Moustapha ñoom ñi nga xam ni jamono yële ñoog ñeneen ci ñi sëriñ bi tànn ñoo doon dem di fekk kilifa gu tedd gi mel ne son excellence monsieur le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste tin xam ni turam day dellu ci kenn ci ñi àndoon ak yonent Yàlla Isa alayhi mu yuhanna al mahmadani mooy Jean Baptiste ak képp koo xam ni nag yaa ngi fi te doon ku yanu responsabilité ci ndigalu mag ñi doon na leen ko ba mu yegsi ci Serigne Babacar Mouhamadul Mansour muy la coordination des daïra Tidiane bu Cheikh Ahmed Tidiane Gaye de toutes les dayra ci diggante Sénégal Mauritanie ak Gambie waaye mu fekk ci fédération bi jur fédération yi mu di fédération bi nga xamee ni mooy dairatul kiram ak ña ca aju muy fédération daira ahmadiya ak benn beneen da beneen pàcc ba ca des di daira ahmadiya plus mu ñetti Mansour yooyu muy Mansour jaañ defe naa ni di Mansour Pouy ak Mansour hmm? Mansour Diagne Mansour Pouy xamuloo ñetteelu Mansour bi du suwaabe waaw Mansour xam na xam na xam na ñëpp waaye ñëpp xam nañ ko tabaarakallah Korea defe naa ni waaw ñooñ ñëpp ànd ak nag le président international de COSCAS muy président Alxaaji Ousmane mi nga xam ni moom itam liggéey bu mucc ayib lay def ndax ñoom ñëpp dañu am cohésion ci wàllu liggéey bi ak membre yu ràññiku yi nga xam ni ñu ngi ci ñëpp nag di liggéey ci jokkalantey loxo jokkalantey xol ak xel ak xalaatin ak xalaat ba liggéey bu rafet bu mel nii mën a am ci organisation bi ngeen gis tey ñu ànd ceeg la haute autorité étatique du Sénégal muy son excellence monsieur le président de la république Bassirou jamaa jaxaar Faye mi nga xam ni ñëw na fi nemmiku ci xalifa bi ak njabootu xadra bi ànd ak ay kilifa yu am taxawaay ci keppaaram gannaaw gi tam son excellence monsieur le premier ministre Hadj Ousmane Sonko ñëw na fi moom itam démb rek mu ngi fi woon bi ñuy jox sëriñ bi ñoom jamaatu nuur ak sunniya ci njiitu docteur Mouhamadul Mokhtar Cissé ñëpp xam post yi mu mës a occupé yëpp ci biir Sénégal ci état bi ñu dénk ko ko mu taxaw ci ci anam bu rafet mook mbooleem collège de ingénieurs yi mu àndal ci liggéey bi ak juriste yi ak administrateurs yi ñu nekk ñu ràññiku ci liggéey bi nga xam ni moom la ñu réalisé gannaaw yàlla ci ndigalu sëñ Babacar Mouhamadul Mansour ak mbooleem njabootu xadra bi ak mbooleem jullit ñi ak mbooleem ñi am yéene yu rafet pour wane seen cofeel ci seen maam Cheikh Seydil Hadji Malick mi nga xam ni moom la ñu doon euh, dundal ndono li mu fi bàyyi mook génération bu tedd ba mu àndaloon mbokk yi noonu rek la les générations se succèdent te ku ñëw rek il y toujours du pain sur la planche adduna kenn du ko mën a liggéey ba mu mat cent pour cent da ngay liggéey pour époque pour des époques bien déterminées ba fa sa doole yam sa ingéniosité yam fa sa xarañ yam fa sa yéene yu rafet yam fa coobare yàlla ànd ak sa itte moo tax itte rek am solo soo demee ba yàlla ne nag yow mën nga noppalu retraité yàlla na fekk ni ba ngay laata dem formé nga une autre génération ou d'autres génération yoo xam ni kenn du chômer dana fekk seen xel fees seen bopp fees ak xam-xam ak expérience seen xol yaatu laa biir ñu nangu jànkoonteeg coono yi pour doon de véritable héritier ndono yu dëggu ci li nga xam ni moo jëm ci li ñu war a taxawee gannaaw mag ñi te loolu feeñ na ba ci niñ ko waxee sànq ci ñoom sëriñ Moustapha ak Serigne Habib ñoom ñi doon dem ci CRD yi ak CD yi ñooñu ñëpp nag Serigne bi nee na mu di monsieur le président de la république muy monsieur le premier ministre que ñu wóolu ak ñañu woonu mooy gouvernement bi nga xamee ni ñoom ñooy mën nga ni ñooy diraw al al al dawla sénégaliya mën nga ni ñooy nuñ nuñ leen di tuddee armure bi république du Sénégal sol ngir taxaw contre vents et marées liggéeyal nation bi liggéeyal société bi liggéeyal sous-région bi ak Afrique liggéeyal àdduna bi parce que nous sommes et nous faisons partie de ce monde nekk nekk euh, nekk euh, membre ci institution internationale yëpp te Sénégal xëy na tuuti na ci superficie waaye réew mu ràññiku la ci mag ñu baax yi borom xam-xam yu mës a jiite Sénégal avant l'indépendance post-indépendance et pré pré-indépendance et post-indépendance boobu ba léegi gis nañu ni Sénégal bari na ay nit ñu ñu mës a am ñu am xam-xam lool représenté Afrique ak Sénégal ci institution internationale yi bokk na ca président Amadou maxtar Mbow bokk na ca président Jacques Diouf FAO ak ñeneen ñu dul moom ñu dul ñooñu su dee ñi nga xam ni singulièrement dañu nekk borom xam-xam liggéey bokk na ca ku mel ne Cheikh Anta Diop nekk suñu fierté nationale ak ñu bari ñoo xamee ni valeur lañu sûre pour Afrique Afrique kenn demul mu des gannaaw waaye Sénégal nag ci biir Afrique tam tabarkal la loolu moo ñëw ba ci tey gouvernement bu bees bii fi nekk di yaakaaru Sénégal yëpp di yaakaaru Afrique di yaakaaru àdduna bi yal leen yàlla dimbale muy président muy premier ministre muy monsieur le ministre yaak sa mbokk ministre yi nga fi àndal ci délégation bu tedd bi lim nañ fi seen tur sànq yow yàlla teg la ci ndigalu yàlla mu jaarale ko ci ngëm-ngëmu ak yaakaaru président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ki mu wóolu def ko premier ministre moom itam muy liggéeykat bu wér te wóor ñoom ñu toog càmbar gëstu ba xam ni yéen ñi vous êtes une équipe gagnante góor ak jigéen ministre yeeg secrétaire d'État yeeg directeur de service yi en général wala sax totalement moo tax yal na leen yàlla dimbale ba la ngeen bëgg ci Sénégal ci progrès bëgg ko ci développement bëgg ko ci stabilité ak sérénité ñi fi nekk di dundu di ay citoyens yàlla teg leen ci seen kanam ci keppaaru président premier ministre yàlla jàppale leen ba ngeen mën a réaliser loolu le peuple sénégalais loolu sëñ Babacar moom su ne mi ngi leen koy ñaanal bu baax baax ndax ku leen ñaanal boppam la ñaanal bàyyam alxaaji Abdoul Aziz dafa doon wax naan Sénégal suñu gaal la gaal nag dañu war a àndandoo sàmm ko quelque que les tumultes que le bateau rencontre sur l'océan de la vie la vie de tous les jours, la vie de tous les ans, la vie des vivants qui vivent sur terre ñëpp war a am esprit de partage de cohésion de responsabilité de participation responsable ndax ku ko ci deful tam yàlla dina la ko laaj ëllëg ndax yent bi saa sallam nee na xubbul watan bëgg sa réew sopp sa réew yéeni sa réew sa bakkan sa bopp minal imaan yi bokk na ci ngëm yàlla moo tax sëriñ bi nee na yàlla na leen yàlla jàppale te yéene ji monsieur le président am ànd ceeg jëwrinam ji jiite jëwrin yi muy monsieur le premier ministre ak yéen ñi nga xam ni yéen a koy jàppale ci ñoo leen di jàppale ci liggéey bi feeñ na ci seen wax waaye feeñ na ci sa kàddu yu rafet yi nga xam ni jëmmali nga ko sa waaye ngir wutu fi président ànd ak bi yëpp ak membre yi fi teew ak ñi jiite état bi ñi nekk ci région bi mu le gouverneur de la région ak le préfet Mamadou Gueye min naa turam ndax euh, tabaarakallaahu ñoo dëkkandoog moom fii ngeen président teg ko fi ak soxna Zeynabou Gueye Touré bi nga xam ni mooy président du conseil régional ak suñu doomu ndey suñu mbokkum taalibe suñu xarit suñu wëlëre muy monsieur le maire de la ville de Tivaouane Demba Diop si mi ñëpp di gërëm di sant ci jaarale ko ci xalifa bi jaarale ko ñuhim wa yushfiqu alayhim wa yukrimuhum bi makrumatin la la xadda laha jazahu llahu anna axsana jaza antum aydan ya sabiya allati laha mumathiluuna fi sénégal ka sufaraa yumathiluuna buldaanahum almuxtalifa wa kuntu qad sami'tu iddata marat yuzkaru min baynihim safiru almamlakati alarabiya alsaudiya allati yumassilu fi hadihi rubu rubu sénégal هذا السنغال الذي هو شقيق لكافة هذه الدول التي تمثلونها وأعني به جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي naqru lahu nuballigu ilayhi abra safirihi bi Sénégal tashakuraati alxalifa axina wa cheikhina asseyd cheikh abi bakrin si Mouhamadul Mansour lahu wali waliyi ahdihi al saahibi sumul malaki al amir Mouhamad ibn Salman al Saoud wa kafati afraadil usrati al malakiyati saoudiyati sharifa wa kafati afraadi al shaabil saudi shaqiq alladi yaftaxu allahu diraahu daiman diraa ahlihi ahli hada alshab li li li istiqbaali almuslimina min mashaariqi alardi wa magharibiha ka muctamirina wa xajij fi kulli xiinin kama nuballigu taxiyaati wa shukri alsayid alxalifa ila kaafati sufaraa dowri alarabiya walislamiya kama zakartu anifan vous aussi, vos excellences, les ambassadeurs de tous les pays qui sont amis du Sénégal, accrédités au Sénégal, auprès de son Excellence Monsieur Bachir Diomaye Diakhar Faye, le calife Serigne Babacar Sy Mansour nous a instruit de vous transmettre, comme l'a si bien fait notre neveu bien-aimé, Cheikh Abdoul Hamid et son frère Mohamed Moustapha le Khalif nous a instruit de vous transmettre ses sincères remerciements et félicitations à l'occasion de cette la vache vers la fin de cette sourate amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi le bon Dieu a instruit le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa que dont nous célébrons la naissance qui doit être pour nous